damay c'est vrai que j'ai travaillé pour l'État du Sénégal dafa am loo xamante ne euh, par devoir de réserve et par bu may wax sànq oto yi du sa oto du oto keneen c'est très simple non non non exemple si man en tant man mu ñu jox auto service mais waxu man s'il vous plaît maa ngi jéggalu oh, aussi s'il vous plaît non boo xuusee nga may ma ma xuus mhm. waaw bu may wax oto ñun oto duñ ko defar les voitures que nous avons bu ñu xoolee suñu économie ak fu ñu toll est-ce que on peut se permettre c'est le président de la république moo ko wax trois cent milliards si oto est-ce que nous ba pare essence bi néew fii oto yi néew fii ça nous coûte beaucoup d'argent est-ce que nu ñu ko dugal feneen xam nga ñaa mais ça damay la euh, économiser ko ak chauffeur. chauffeur c'est moi qui le paye. mais non c'est moi qui paie. mais waaw laisse-moi parler. ah oui dis ça au Sénégal car man jàll ma doon fa fonction. laisse-moi au niveau TFM. waaw loolu alalu réew mi. c'est pas non kon kenn amul doon dafa la réew mi dans le privé. c'est ah kon quelle la différence. non non parce que léegi. waaw mais waaw mais comme keneen war am war am kii. non non waxuñu waxul mais s'il vous plaît soyez. moi je trouve que sax oto bi ñu jox Charles. non il mérite beaucoup beaucoup plus que ça. kon jox ko non du man maay joxe oto yi. non kay kay ma wax la. attendez ça veut dire vous n'avez même pas compris la philosophie et c'est ça qui est dangereux quoi dama ne quand je parle de voiture dama ne oto faaw ñu joxe oto faaw ñu joxe oto mais suñu niveau de développement fu mu toll nii est-ce que mën nañ def niveau de sacrifice yooyu ma continuer 1965 le Singapour prend son indépendance Singapour xam naa ñaari Singapour xam naa ñaari Malaisie mooy Singapour bu ma xamoon ak suma Singapour bu ma découvrir Malaisie bu ma xamoon ak Malaisie bu ma découvrir il y a pas longtemps. deux ma xam Sénégal bu ñu newoon du ñu woon seen morom un indice de développement ak Corée du Sud ñoo toll woon Corée du Sud dans les années 1970 ba 80 ak Chine kenn waxul Singapour kenn waxul kenn waxul Malaisie où est-ce qu'ils sont aujourd'hui où est-ce que nous sommes aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé foofu pourquoi affaire yi changé mais parce que dañu commencé di dóor dañu dóor fu ñu waree dóor man je crois pas au Père Noël man gëmuma Père Noël quand il a fallu régler l'affaire de Karim Wade dañ ko régler quand il a fallu régler l'affaire de Khalifa Sall dañ ko régler on demande la même chose pour tout le monde man la problème yoo xamante ne tey am na fi dañ ko waxante bu fekkente ne gëmuma Père Noël man mënoo toog boo may wax ay ay j'allais même pas évoquer cette question ñaa moo wax mais j'allais même pas parce que du ma wax ay affaire Cour des comptes IG maa toog ak ay inspecteurs qui avaient des larmes aux yeux et qui me disaient benn phrase le Sénégal souffre de son élite c'est des prédateurs dina xamee boppam mooy booba lu ngay wax ni da ngay gis nit situation bi tey nga seetal ko deux ils ne travaillent même plus des gens qui ne qui ne travaillent même plus qui sont devenus des co lan lañu xam lan lañ fi def moi j'ai travaillé dans un ministère je sais ce que je sais comment l'État souffre waaw am na loo xamante ni doo doo ko fi wax eh, yow it doo ko wax waaw kon mu <laughs> donc lu bëri loo xamante ne am na si biir état xam nga lan moo fi inacceptable les Sénégalais tout mbaa tu es là pour eux mbaa tu es là pour toi c'est tout bu fekkente ne neewoo fi pour Sénégalais yi mais écoute tu gardes le, le, le dossier sous le coude dégg nañ fi Abdoulaye Wade ne j'ai des dossiers contre tel tel tel tel quand il s'est il ne s'est pas entendu ak Pape Diop ak yu demee noonu mu proféré fi ay accusations est-ce que c'est normal nga xool 15 millions de Sénégalais ne nii xamal naa leen lii lii lii mais du ma def dara au de quoi yow yaay kan parce que tu président de la République mais c'est dégg nañ fi président de la république Macky Sall déjà des dossiers sous le coude j'ai mis le dossiers sous le coude au nom de quoi pourquoi c'est-à-dire il y a des questions fondamentales mais lan moo xew Guet Ndar pourquoi nit ñi génn pourquoi de plus en plus on va avoir les vendredis ñoo lank avec 200 000 vous pensez qu'on peut continuer comme ça ce n'est plus possible faut qu'on se dise la vérité dans le blanc des yeux moi je ne mënuma nangu c'est-à-dire nga yor sa oto de fonction c'est-à-dire c'est tout à fait normal lu ma mënul comprendre est-ce que ñun tey on a les moyens de nous payer des des V8 des xawma V30 ah, des des choses comme est-ce qu'on en a les moyens est-ce qu'aujourd'hui on peut faire faire qu'aujourd'hui quand je vais tout le temps dama le meilleur lycée de ce pays là 9500 allez voir dans quelles conditions est cette école c'est inacceptable ñu dem xool dans les dans, nos écoles primaires les toilettes de nos petits de nos enfants c'est quoi les toilettes de ces enfants là ñu dem dans les et après tu me dire que toi tu as un là tu le malade je t'envoie promener. alors mais euh, c'est et sans respect. oui pare euh, naa. bu parewul sax. waaw non je sais mais sur les journalistes je suis euh, sur les journalistes je suis. waaw mais attends mais non mais der der mais der ñoom am na foo xamante ne je suis totalement de ton avis. non moo gën mais non attends mais il a raison. non kay ma wax la il a raison. il faut ngeen journal frais mais mais mais il a raison sur les journalistes parce que dafa am loo xamante ne tey non non je suis désolé il a raison parce que dafa am moment boo xamante ne tu sais l'idéologie alimentaire qui est rentrée dans ce pays là et qui rentre partout et qui corrompt ce pays qui fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi c'est ça qui est c'est ça qui est dommage. non corruption moo andi ñoo. kaay ma wax la. même corruption là. moo tax ñuy wax tey Cour des comptes. non kaay ma wax la man j' ko ñu jàppante fii quoi parce que. d' accord vraiment si li ngay wax. mais Ngom on n' est pas envieux franchement envieux benn fonctionnaire. vraiment on on dara quoi franchement. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax bu baax a a baax. Euh, li ma li ma li ma bëggoon wax. Euh, euh, xam nga wax bi xam nga boo toogee tey les cours de contrôle c' est que da ngay yaakaar que. y a que Sénégal moo am ay corps de contrôle c'est comme par enchantement Sénégal kese moo am corps de contrôle mais la la réflexion elle doit beaucoup plus poussée mu mu gën a sori xam naa mooy li may wax chaque fois gars yi ne kii dafa dof encore c'est que ay contrôle entreprise ay institution organe da ngay xool Sénégal mburu meew courant ndox suuf géej c'est que même ñaari xale yu xeex on ramène ça président de la République ñaari xale boobu président man dama bëggoon ñu nekk si niveau boo xamante ne les institutions waaye boog bu amee ay corps de contrôle même au niveau du des ministres ñu war a gérer les aspects juridiques avancés ñu ñu ñu ñu ñu wàññi charge bi ci wàllu président moo tax ma ne les gens qui disent que dañu surprésidentialiser suñu régime est-ce que waruñu xool comme ça président bi noppalu est-ce que mandat bi ñuy dem du ñu wàññi doole président parce que il est partout en même temps il peut pas tout gérer man je pose même cette problématique ñu def ay ay ay démembrement limiter les les les tâches et les engagements président gérer les choses du Sénégal mais ñi ngi xamante dañuy am ay ndombal mais ku nekk nga am loo signifié di doxal sa sa wàll université mën na bañ si de la a un ministre de l'éducation un ministre justice. mais ana ñooñu ñëpp mais c'est c'est partout ah boo marché Sandaga léegi ñaari commerçant bu ñu xeexee le soir ñu ne la ñu président. foofu loolu la ñu war a xoolaat c'est quoi le président est qu'il n'est pas trop trop important. ñu xoolaat ko que du moom moo ci dugal boppam. bi mu supprimer poste premier non même même même ak poste. non constitution bi doole boobu yëpp le premier ministre ou ko président joxul lenn lu mu yor yëpp réew mi ko jox. constitution moo ko ko A Z. Hmm. sans exception. Abdourahmane. dara boppam. on voilà gis nga dafa am loo xam ne foofu ñu wax ko. Euh, le Sénégal est dans une dynamique d'un consensus sur le faux. Hmm. on est sur la base des slogans. di naxante suñu bopp. yéen ko wax fii lu ne fàng kenn du ko jeex. problématique yi ñuy dund fii. un opposant l'avait vécu à nos côtés et l'avait dénoncé à nos côtés. bay di mënaase amul luñ fiy jàngal kenn fii ci jubadi ñun ñëpp dañ ko fekkee et lu mu bon bon bon sax kañ doon xeex tëj ñu fi ay ay njoñam ñu doon yor ASER te yorom euh, LONASE bay la woon ki fi ne kan la tëj ñi mu àndul loolu kan moo ko sañ a weddi nous ne sommes pas dans l'appréhension ni les suppositions nous commentons des faits réel matériel bu nit mënut a contester le président de la république Macky Sall bi mu nekkee opposant xamoon na ne le président Abdoulaye Wade avait une surcharge de pouvoir et un pouvoir ex extraordinaire yi am li ñuy wax le pouvoir absolu corrompt absolument tous les créneaux de corruption de détournement de deniers publics d'impunité de délinquance financière mi ngi dépendre ci sañ-sañu président de la république moi je suis dans une cellule de contrôle et de vérification des recettes au niveau de l'hôpital de Fann ba suñu directeur jëlee ay ay ay ay ay ay jumtukaayam yokk dispositif de contrôle bi indi machine yeeg yooyu suñuy recette dafa doublé de cinquante pour cent ba mu commencé di sanctionner xaalis bi dafa yokk loolu dafa jar dem université dafa jar commission bu ñu kenn rey nag wax ji mi ngi bëgg a bëri fii dañuy jéem a naxante loolu mooy dëgg dama ni le procureur de la république bi ñuy bañ tudd naan d'accord ñu bi ma nous ne sommes pas d'accord sa démarche ne nous convainc pas ah mais si une célérité magnanimité bi mu àndal ba ñuy wax waxu caisse d'avance sur 1,8 milliard rappelé naa leen première prise de parole dama leen nag birima dama leen di suivre bu baax des fois nga def ay intervention yu rationnel des fois nga def yu irrationnel dama lay laaj rapport IGE 2014 la fa am recommandation yéen wax recommandation la waxuñ tëjal de mu ne caisse d'avance su mairie Dakar bii ni muy doxee baaxul soppi leen ko waa procureur génn def communication Sibila Sall ñu tëj Khalifa Sall xam nga ñaata la 1,8 milliard musuma toog fenn ne def naam deful man Abdourahmane Sow ak waa COS M23 mais dama ne rapport 2013 jiitu na ko recommandation pour recommandation le vérificateur général a demandé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre monsieur Samuel Sarr bi ngeen gis mu ànd ak Macky Sall campagne élection 2019 bi il faut arrêter loolu kan moo ko mën a weddi dama ni instruction générale des finances c'est un organe de contrôle du ministère des finances Sénégal la ko moom di fay ña fa ne nee laaj leen ko lu jëm ci nangami milliards waxuma def na de lu tax ngeen may xañ sañ-sañu ma xam def naam deful man foofu laa mere président de la République xëy na kii mu teg ku dem la bokk yow conseil d'administration dañ fay siège yow depuis 2094 xaw c'est vrai que nous faisions des délibérations sur les dépenses à faire le commandement des dépenses ça n'engage pas le conseil bu dee suñu directeur dañ ko ne dépensel ci benn rubrique budgétaire quatre-vingts millions wala cent millions ñu dem fekk fi laxasu poobar buy jar juróomi dërëm ah mu ne huit cent francs lay jar ñenn kenn du wax loolu conseil d'administration mais il faut arrêter dama ne le président de la république concentre tous les pouvoirs de ce pays il en est conscient et que loolu dafay favoriser l'impunité réew nag bu amee corruption am impunité am complaisance indi impunité réew moom day yàqu nañ waxante dëgg yaa ngi koy wax sànq maa ngi leen di seetaan bu ñuy dialogue nañuy wax institution pour man bi fi ëpp doole mooy ñi or ñi ñi xay saytu mhm. xaalis bu tuuti bii ñu yor mhm. ba nga xam ne mënoo ci defar avion bu mën a jëli say mbokk fële mhm. mënoo leen équiper parce que amoo xaalis d'accord nañ ni ko c'est une vérité malheureuse que dans la vision de de, de la gestion de ce pays mmh. n'est-ce pas dans la vision effectivement euh, prospective par rapport ak yenn priorité lan mooy priorité da ngay jël milliards wala milliards je ne sais pas parce que mhm. kenn xamul ñaata la mosoo ci communiquer lu leer nga préférer dem ressusciter une entreprise mourante bu France que nga ñëw xool lan mooy vision nan nga yore réew